waaw waaw mi bëggul dara rëcc la ci réew mi maa ngi lay digal nga suivre concept bii tudd récap du jour fii ci sans limite TV maanaam lundi ba vendredi dañu lay jox xibaar yu wér te woo muy wàll people wàllu ba ci xew-xewu jamono tubaab bi naan ko fait divers danga bëgg a xam xibaar yi ñeel sa artiste préféré sa acteur préféré wala sax sa influenceur préféré récap du jour def la koy jox en temps réel sans limite TV xibaar yu amul limite xibaar yu amul salaamaaleykum bu ñu leen nuyoo dal leen jàmm ci récap du jour dañu koy ubbeek mbiri ki nga xamante ni moom mooy Khaliphone Sall ak Gabriel Kane mais laata loolu Gabriel Kane dañu ko invité woon démb fële nga xamante ni moom mooy émission bi tudd balance fële ca Walf TV moom ak avocat wu Adji Thiaré di soxna si nga xamante ni moom mooy tuumaal Californie daf ko doon violé ba mbuj mbir ma daal di mujjee cay loxo yoon waaye laata loolu nag euh, ginnaaw waxtaan ba tem ba moo nekkoon métital bi ñuy faral di métital euh, jigéen plateau ba nag dafa mujj jaxasoo ndax Gabriel Kane euh, balaa Californie bi ñëw doon na werante ki nga xamante ni moom moo tudd Moussa di euh, chroniqueur ca Walf TV ndax Moussa dafa daal di euh, jugé mën nañ ko tuddee noonu aji caar yi ndax dafa ni xale bi elle n'est pas correct ndax colinam daal di koy wéer ci l'islam Gabriel kan nag mënul dégg loolu ndax dañu ko waral leen di jugé nit ñi ci ay seen di solo sa genre yi ñoom ñoo yàq Sénégal bàyyi leen di jël affaire de diine di ko dugal ci débat bi ku nekk ak Eh, gëm-gëm solul colom warul tax nga ko ci jugé naan elle est incorrecte ba de sax eh, Gabriel Kane ci eh, kàddoom daal di wax ni ta foi tu peux la mettre sous ton lit maanaam sa gëm gëm def ko ca suufu lal Moussa nag werante eh, ba mu jógee Gabriel Kane ko boo arrêté wul li ngay wax damay quitté plateau bi waaye Kaliphone Sall ba mu ñëwee dal ci kaw avocat wu eh, ki nga xamante ni mooy aji caare ndax dañu ko li nga wax yëpp dara amu ci Kaliphone Sall nag daanaka sax nag dafa doon indi ay leeral jëm ci li nga xamante ni moom lañu koy tout eh, tuumaal waaye la ca gën a bees plateau bi dañu ko mujj annulé ndax plateau bi ko arrêté ci information yi ñu ci am mooy directeur ba doom ci Sidi Lamine Niass moo daal di woote téléphone pour ñu arrêté émission bi lan moo tax ñu arrêté ko di xibaar bu ñuy toppandi waaye jàppale ni Kaliphone Sall moom dafa ni euh, dafa ni directeur bi dafa annulé émission ba parce que bëggul ñu daal di koy invité moom kalifon ndax euh, voilà saagakat la Kaliphone di rappeler également ni Assane Diouf da doon faral di saaga kilifa diine yi Youssou Ndour ak ñeneen ñi stop teewul Walfadjri daal dina koy ubbil ay buntam ba mu ko soxlaa ngir mu wax ci réew mi ñuy dagg émission bi ndax moom la ñu invité dafa daaneel yëkkatiwaat ci beneen ponk daal di attaque nga xamante ni moom mooy Gabriel kan ndax nee na Gabriel kan li ma la xamal dafa bëri euh, yaa ngi may wut bul tax suñu noon yi wax bul tax waa Pastef fii am lu ñuy am lu ñuy wax si ñun ndax nee na ko yow da nga doon maltraité Adji Sarr da nga ko doon sonal woo naa la appel benn jour sa bu jigéen mi ngi toog di dégg wax ji aji Sarr di la tuumaal ni doo wax katu dëgg da nga ko doon utiliser waaye nag ndax guerre wala sax werante euh, mbàccoo mbiit mbàccoo dafa war am si diggante ñaar ñooñu di Khalifa Sall ak ki nga xamante ni euh, moom mooy Gabriel Kane nañu yónni yàgg euh, yàgg dinañu wala sax dinañ topp loolu xam wànneen fu muy mujjee ak ki gëtëm ba léegi eh, ci wàllu yoon wala sax leneen jëm ci wàllu tas xibaar Aïssatou Diop Fall maire ba Fouta jëmale ci Ousmane Sonko ak i ñoñom rawatina Barthélémy Dias bi nga xamante ni daf doon traité ñenn ci point de presse ñenn ci patron de presse yi ni ñoom dañuy am feneen fu ñuy far eh, moom sax nag ay Diop Fall nee na li ko metti mooy émission ba mu jeexee wala sax Babacar Fall ba mu nekkee RFM ba mu nekkee RFM la mu wax euh, naam saaga yi ëpp na waaye nag da ko waroon woo téléphone nee na bu ko woon téléphone mu ñëw teewee yàq lu mel ni xamee ki nga xamante ni moom mooy Barthélémy Diaz ndax nee na doo ñëw ci kër xas leen ba ñu ràpp dem sa yoon te ñun duñu la tontu nee na également Youssou Ndour fekkee ma si boole bi nga xamante ni moo ko moom tojul fenn Youssou Ndour am na droit nekk fu ko neex am na droit far fu neex donc lan moo tax bu Youssou Ndour faree rek euh, ñun forcément dañoo war a ànd ak euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy état du Sénégal en tout cas moom Aïssatou Diop Fall mer na ci li nga xamante ni Barthélémy Dias daal dina koy wax nee fii euh, réew mi euh, bu la nit euh, dompatee danga koy kaata wala sax bu la kaataa nga daal di koy dompat lu ñu la wax danga nga war a fayu ndax réew mi moom moo toll foofu Aïssatou Diop Fall ba léegi dafa daane rek Pape Pape Cheikh Diallo nee na Youssou Ndour du seen morom moom tamit ma ngay jëlal défense ki nga xamante ni moom mooy Youssou Ndour xibaar boobu nag ñu ngi ko jëlee ci Galsen beneen mbir di wàllu people ki nga xamante ni moom mooy Akhlou Brick Paradise génne nañ single morceau bu bees tax daal di koy clipé morceau ba ña nga say way li nga xamante ni euh, sax classe la ah donc classe bi daanaka jeexagul ndax euh, ñi ngi ko tuddee effet de l'air ndax ca avion daanaka euh, Blaise Diagne aéroport Blaise Diagne am na partie boo xamante ni fa lañ ko tournée ngaa ko def vidéo ni leen pour man fu ne ngeen di dem ndekete yéen da ngeen di dem fii Gambie gi kase waaye ci biir morceau bi Akhlou Brick Paradise daanaka sax ma ngi koy traité naan ngaa ko dafa bëgg a cus ngeen baal ma si kàddu bi nii la ko waxee ba sax daal teg benn audio waaye laaj bi samp mooy audio bi ñu teg ci clip bi est-ce que kooku Ngaaka Blindé la wala déet euh, loolu nañu yooni yàgg wala xibaar boobu tamit nañ ci xaar ki nga xamante ni moom mooy Ngaaka Blindé amaana dina ci andi ay tontu. Kalz ñëw ci mbir moomu balaa sax Kalz euh, Ngaaka Blindé moom ñu ngi xaar mu daal di tontu nekk loo xamante ne chroniqueur yu baree bari ñi ci profito am lu ñu wax ndax ñu baree bari gëj nañ leen dégg mais à travers clash bi nii tax na ñoom ñëpp ku ci nekk di yàbbi jëm ci mbir mi mu mel ne hip hop Galsen ndax daf ci gagné ndax daf ci perte am na ñaari euh, benn chroniqueur ak ki nga xamante ni moom mooy rappeur di euh, Fata et présidente ak Kalz animateur moom daal dina ci wax. kal si nag révélation yi nga xamante ni daal dina koy def nee na King Xës King Xës ñu fàttali leen eh, ci son bi nga xamante ni eh, moom moo nga ak eh, moom ak lu biir paradise ñoo ko defoon ak El Menemo ak King Xës ñu fàttali leen France lay dund waaye moom defoon naa single ak ki nga xamante ni moom mooy Matadi est-ce que du loolu moo déclenché waat coow li ndax def ak morceau Matadi wëlbatiku def ak son ki nga xamante ni mooy Akhlou Brick Paradise ñoom la gën a minanteel ñaari label yi bokkuñu est ce que nekkul loolu tamit bokk na si liy juróon coow li waaye King Xeus ginnaaw jamono ji may wax ak yéen na France waaye King Xeus si boppam bu ñu sukkandikoo ci Calz nee na moo ko présenté Akhlou Brick Paradise moo ko présenté ki nga xamante ni moom mooy Bril Fight Foo te Bril da doon job ak euh, ki nga xamante ni mooy King Xeus mais également daf doon job ak euh, Ngaaka Blindé ci lu ma xam donc Ngaaka bu ñu donc Bril Fight Foo bu ñu donc moom loolu du ko weddi Kals moo wax loolu wax na tamit ni ñun animateurs yi dañoo war a jël suñu responsabilité ndax bu ñu bàyyee mbalax maan yi di euh, faral di invité rappeurs yi donc ñun si suñu responsabilité la bokk ñun ñoo war di génn di wax ndax fii nag euh, voilà waruñu di bañ di wane suñu péete lan moo tax ñuy raay raayal bu ñu raay raayalee ndax bañ rappeurs yi mere ñu loolu ñun lay porter préjudice ba léegi ci mbir moomu dañu fay daal di taxaw ndax Kalz nee na ma ngay waaja lu doy waar Dip ndax dafa ñëw war a génnee morceau boo xamante ni dafay fay wax ji wala dafay wane ni man maay leen mën maay king original bi donc loolu lu ñu toppandi la jamono ji ñuy wax ak yéen bu ñu sukkandikoo ci Kalz si Calze Dip Doundou Guiss mi ngi studio di préparer lu doy waar lan lay préparer ndax dafay dugal coow li Omzo Dollar également ñu bare bari ñu ngi koy laajte El Presidente Fata ñëw na également wax ci Fata nee na lii jëmalul hip hop fenn maanaam daanaka coow li nii euh, hip hop du si gagné lu baax yi ah donc bu ñu déggoo ci moom ni mu analyser daanaka moom ndox mu sedd la daal di xëpp euh, ci euh, li nga xamante ni moom mooy mbir mi bu ñu fa jugee dañuy dem ci wàllu xew ko fait divers immeuble Kébé benn homme d'affaires moo fa daal di jël bal dóor sa bopp ba daal di ñàkk bakkanam loolu démb la am immeuble kebe si benn appartement ba nga xamante ni waa ji dafa nekkoon waa ji nag mu nga tudd euh, Gassane Athie Gassane Athie la tudd moom nag om d'affaires bi lan moo ko metti mu waral mu def loolu am na koo xamante ni nag également bi mu jëlee pistolet bi axma à feu bi di ko dóor ci bopp bi ñëwoon na di ko ngir mu bañ a daal di dóor bal ba ca bopp ba waaye teewu nag da koo dóor bal ca tànk ba ba mu paree teg bal ba sa bopp ba daal di fëgg Euh, boppam ca la daal ñàkkee bakkanam euh, ca saa si lan moo waral mu daal di def loolu lan moo ndax jafe-jafe xel la am wala déet en tout cas moom am na soxna am ñaari doom euh, lan la enquêteurs yi di ci wax enquêteurs yi nag ubbi nañ ci ab enquête. wala sax police ubbi na ci enquête ngeen baal ma ci kàddu gi di ci euh, xool mbir mi fan la fan la mujje wala nan moo indi li nga xamante ni moom mooy xaru boobu beneen mbir bu doy waar am démb fa li nga xamante ni moom mooy yoonu mbuur accident bu euh, doy ba jur juróom-ñaari doomu aadama ñoo si daal ñàkk seen bakkan sa saa si ñeneen ña nekk euh, bu sawataas yi waaye nag euh, loolu euh, di euh, oto yi nga xamante ni dañu laalante accident ba nag comme ni ma ko waxee ñenn ñi nga xamante ni yàlla bul seen bakkan jamono ji may wax ngeen yéen ña nga ca bërëbu sawataas yi. xibaar yu amul limite ngeen ci doon ànd ak Ouzin Babacar mu nekkoon ci caméra bi réalisation bi jaajëf. waaw waaw mi bëggul dara rëcc la ci réew mi maa ngi lay digal nga suivre concept bii tudd récap du jour fii ci sans limite TV maanaam lundi ba vendredi dañu lay jox xibaar yu wér te woo muy wàllu people wàllu ba ci xew-xewu jamono tubaab bi naan ko fait divers danga bëgg a xam xibaar yi ñeel sa artiste préféré sa acteur préféré wala sax sa influenceur préféré récap du jour def la koy jox en temps réel sans limite TV xibaar yu amul limite xibaar yu amul.